jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu leen di souhaiter un bon euh, heureuse année deux mille vingt et at bi ñu génn mu doon at boo xamante ne lu bari bari ci taarix mën nañ koo waxtaanee ñu ngi ñaan yàlla na doon suñu at woo xamante ne yàlla na fi gëj at wi ñu génn doon na at boo xamante ni bari na ay mettit bëri na ay njàqare bëri na ay tiis yoo xamante ne dal na ci monde làmb dal na képp koo xamante ni euh, yaa ngi ci réew mi euh, ñuy ñaan rek euh, yàlla suñu borom moom mi nga xamante ni moom mooy faj wala moom mooy defar yàlla nañu yàlla defal at yi ñu dugg muy 2021 mu nekk suñu at boo xamante ni at wu neex a neex a neex ci ñun la mbokk yi ki ma taxawal nag wala ki ma toogal kenn du ko présenté ci làmb kenn du ko présenté ci Sénégal muy Papa Sow Papa Sow mi nga xamante ni mooy njiitu jàmbaar Wrestling Academy Papa Sow mi nga xamante ni kenn du ko présenté takkusaanam yi bari na yoo xamante ni mbokk yi buñ ko doon lim fii tey du jeex. mun naa la jox exemple ci combat bi nga xamante ni bokk na ci combat yi ma gën a neex mu dox ci diggante combat ak tonnerre nekkoon nañ moment boo xamante ni ñaari xale la woon ñaar lañ ñoo xamante ni dañoo waroon génn kero stade Demba Diop foo sànni mbatt mu takk mu doon koo xamante ni vraiment tey dañ ko seet si mais yëgaluñ ko dara dañu jékki-jékki rek bett ko ngir ñëw ci moom waxtaan moom papa maa ngi nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay ziar nuyu àdduna yëpp di leen souhaiter euh, bonne heureuse année 2021 ñaan yàlla at bi dugg nii di at bu dàq ci at yi ñu mës a paas yëpp ci àdduna di ñaan yàlla jàmm ak salaam yàlla jëlee fi mbas mi di coronavirus ñu ci wàññeeku yàlla xare leen àjjana ñu tëdd ci leen hôpital yàlla yëkkati leen. ñu mu dalagul yàlla mu dal kenn yàlla na fi jaare rek ñu dugg premier premier jour de naa rek mu yem fi incha allah. mais papa bu ñu doon wax deux mille vingt bu ñu delluwaatoon tuuti euh, lan moo ci nekk loo xamante ni moom euh, bokk na ci lu la metti bokk na ci loo xamante ni njàqare la boo xam ne jàpp na papa Sow. waaw mooy ci li mu rek coronavirus bi ku ne gis na ni at bi atu catastrophe la at bi chaque jour boo bee sa téléphone rek nga gis RIP. mooy at la boo xam ne ñëpp nag Sénégal bu nekk rek gis nga ni sa ay mbok sa ay am di jàmm sa ay dëkkandoo yu bëri wàññeeku nan waaw wàññeeku nan rek parce que pas coronavirus moo leen wàññi wala dara mais wàññeeku nan maanaam at bu at bu jógee nii quoi ñaan yàlla daal at bi daal yàlla bu mu fi amati moom waaw yàlla at bu mel ñun fekk woon jamonoy waaye at bii moom yàlla bu mu fi amati moom met na trop quoi waaw. ça fait nga baaluwaale àq parce que ko xam na mbër xam ni ay dëkkandoom ay njagañaaleem ay supporteram fu nekk la nit di nekk soo amee combat di la ñaanal surtout ñi lay ñaanal te nga xamante ni xamoo leen. xamoo leen surtout waaw waaw mbër ma ginnaawam daa yaatu lool ñi nga xamul ëpp fuuf ñi nga xam tax na daal ñi ngi baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak sutura su yaatoo yaatu ñu koy ñaanal ñëpp. sunu supporter ak ku dul ñu koy ñaanal jaamu yàlla yëpp quoi ah. moom ñun ñëpp ay mbokk lañu wax dëgg yàlla ñëpp ay mbokk lañu koo xam koo xamul yëpp quoi di ñaan daal yàlla ñëpp am jàmm bu ñëpp amee jàmm rek yow yow yow nga noppalu waaw loolu àdduna. say mbër ci làmb ji. waaw ñaanal ñëpp rek mooy li ma la wax nii ñaanal ñëpp rek muy mbër ak ku dul mbër ak jaamu yàlla yëpp maa leen ñaanal ñëpp am jàmm bu ñëpp amee jàmm rek ñëpp nekk ci jàmm waaw kenn ko manqué jàmm rek mën na touché ñëpp impact ñëpp quoi ba tax daal li ma yéen sam bopp laa yéene ñëpp mbërëg ku dul mbërëg jaamu yàlla ñëpp daal ñëpp am jàmm rek. mais papa ñu gis euh, boo delloo ginnaaw ci 2020 bi papa Sow sanc na écurie bu bees fas yéene woon cee bëree mais yàlla suñu borom dogalu ko loolu bokk na ci ci li la gën. waaw sant yàlla rek ndax kenn ku nekk ñaan nga yàlla dem ba ne ah kii de yaa loolu lu mel nii. te li ma taxal aussi tamit ñaan yàlla la ma def ci làmb xale yi ñëw di ma fekk si yàlla nañ def lu ko ëpp fuuf ndax loolay sama sakk loolay sama mbégte mooy sama lépp ndax li gën a neex rek mooy nga taxaw mbir mu am continuité mu am solo quoi. man daal li ma taxaw ni daal ñu ngi ci woo ñëpp Papa Sow moomu ko ma sàmm moom ko ma demb moomu ko suñu yëf la ñun ñëpp ku am idée bu baax rek ak yéene bu baax rek ak jikko ju baax rek yaa ngi ci biir. loolu lañ ñoom jikko bu na nga am jikko yu rafet loolu daal lañ yàlla quoi. dañ doon gis 100 pour cent fu nekk mais yéen dafa mel ni dépassé ngeen 100 pour cent dafa mel ni li may gis ci yéen koy dund famille boo xoolee diggante Papa Sow euh, ak Yekini Junior Papa Sow Goro Sock Papa Sow Franc Papa Sow Modou Lo loolu lan la. waaw yàlla moom mooy boole ay nit xëy na da ngay gën a jege ñeen ñi rek ba tax na ñun amuñu frontière ci xale parcelles yëpp ndax tey ji ñu noo ci mag daal. ñoom Papa Sow ak ñoom Modou Lo ñoom Yékini Junior ñoom ñëpp daal ku lim da ngay jum ñoo ñee ñoom ñooy doyen xale yi ba tax ne xëy da ngay am ñu la gën a jege rek quoi mais ñëpp lañ yemale 100 pour cent bi ñun dafa dem ba romb na ay ay àndandoo yooyu ndax kenn ku ne su ñun waxoo ko mais danaan lii bu yàqu du yàqoo ci man loolay ànd ku ne day bañ mu yàqoo ci yow ku nekk bañ mu yàqoo ci yow rek ànd bi day rafet ba tax ñu ànd ànd boo xamante ne nii xam nga ay ku sañoon nekk pee mais concurrence day nekk ci ngor ngeen ànd àndu gor àndu gor rek am solo bu ngeen àndee àndu ngor rek ànd bi day yàgg ànd boobu la ñu ànd nag ñaan yàlla yàlla dàq ñu seytaane seytaane nag nit njaay la day sol veste bu rafet wala mu sol jersey bu rafet di lekk ceeb dawal oto di sol ay lunettes yu weex yaa xam nit njaay la seytaane moom du garab du leneen nit la diggante bu yàqu nit a ko yàq yàlla nañu yàlla musal ci ku yàq loolu la ñuy ñaan yàlla kon yaa ngi koy bàyyi xel que ni nit mën na ñëw ay jamono ci kanam Papa wax la ci keneen koo xamante ni sa naataangoo la loo xamante ni dafa yàq parce que gis nañ ko d'habitude mbër yi bu ñuy ànd ànd bu rafet da ngay jékki-jékki gis ñenn ñoo xamante ni ànd bi arrangé wu la bañ dem ci Papa Sow ne ko diw wala dem ci diw diw diw diw. non <laughs> yaakaaruma loolu loolu yaakaaruma ci àdduna mu yàq suñu diggante ndax euh, dina dem ba mature ñun ñëpp yàlla boole ñuy ànd. ñu encadré suñu ay raq aussi tamit suñu raq yëpp ku jege ku jegewul ànd bi du àndu ay ku pee ak ku jël dës and moom laa àndu ngor la ñuy ànd wallaay azim du ay caaxaan dañuy ànd àndu ngor àndu gor lu ma yéene sama morom la yaa laa yéene ñëpp li ma ñëpp yéene tamit gis naa ko tamit ñoom bu ñu soñoon maa jiitu ñëpp man ma soñoon ñooy jiitu ñëpp loolu am solo ba tax na nit yaakaaruma daal nit mën na yàqale yàlla daal la ñaan ya rek yàlla sànguñu sutura dàqal ñu musiba ak balaa ak seytaane seytaane nit la moom te am nañu yaakaar ne ah caaxaan du ko yàq li am na yaakaar yàlla nag moo yàlla nag mooy moo dogalee ànd waaye am naa yaakaar ne lii nit mënu ko yàq waaw. ndax li ñu ànd seytaane am yoon bu seytaane am yoon. Mhm. waaw. bari na jafe-jafe yoo xamante ne làmb mu ngi koy dund yow lekkoon nga avance mu nekk lu yàgg euh, tey actuellement ñu ngi waxtaan ba bëgg a trouver terrain d'entente que ni alors làmb dañ koy def. Euh, huis clos loolu ban gis-gis nga ci am en tant que mbër. waaw gis-gis bi li ma ci am de lu rafet laay gis ak lu positif. adduna moo toll foofu. adduna moo toll ci nan moytuwante. adduna ndax ku sañoon booy bëri ñu seet si la waaye ñun balaa ñuy wax nañu ñaar ñett di seetaan nañu nañ d' abord am huis clos ba pare. huis clos ba pare ñu xool liñ ci tegaat mais d' abord nañu bëre looloo ëpp njëriñ lépp ndax boo bëree see nag ki toog ci télé bi ak ki ñëw stade yëpp benn la pour man ndax boo duggee ci géew bi danga nga ay nit a ngi lay seetaan di nga dégg da nga fàtte sax ne ay nit a ay nit a ngi waay ndax concentration loolu am solo waaw te ambiance bi nga war def yëpp di nga ko def ci ci làmb di nga baaxu di nga lagat di nga neexal di nga def lépp di nga xam moo lay indiwaat ci làmb quoi ah man daal li ministre wax de man d'accord naa ci à mil pour cent d'abord noonu xool nu ñu bëree ba pare bu demee ba fii ci kanam bu dee feebar wàññeeku na ñu xool ñaata moo war a dugg ci arène nationale bi mais d'abord nañ bëree looloo am looloo idée bu njëkk te ma rafetlu ko lool aussi hmm. ah. bëri nga tàkkusaan bu nekk mais tàkkusaan boo xam ne kenn ñëwul ci stade bi musoo koo bëri. waaw loolu tamit boo xam nga yëpp ay reer la xam nga ñaanan yàlla euh, fu nit bëre ñu bëre fa yàlla defal nañu ko fu nit dem ñu dem fa yàlla defal nañu ko lu mbër am ñu am ko tamit yàlla defal nañu ko bu ñaar indi tamit ñu ne ah amoon na jamono boo xamante ne nii coronavirus dafa tomboon gars yi di bëre huis ñu ne bokkoon nañ tamit mbégte la histoire la waaw sant yàlla. promoteur bi après kii bi ba tey yéen a ngi déggante. bon déggante wut mais comme que mi ngi si jàmm ñu ngi si jàmm rek am na looloo am solo quoi. ndax bon nañu déggante si jàmm rek ndax làmb moo taxaw dégg làmb dafa taxaw. kon bon promoteur bi tamit amul droit di ñu woo looy nangam nangam mi ngi si jàmm ñu si jàmm alhamdulilah rek. amul problème boo déggante moom amu ci solo loolu na nekk si jàmm rek mbër bi nekk si jàmm promoteur bi nekk si jàmm. jaajëfal baax a baax a baax kontaan naa trop ci bett gi ma la bett nga nangul. waaw mais tamit bon nit ku moom déplacé ñëw ba ci yow naam bon mooy loolu daal waaye daal ñu sant yàlla rek di la jaajëfal nga xam ne ñun ñëpp benn la ñu. xëy na bi nga déplacé di sa kër di ñëw rek ne bu ma ñëwee naa am na am benn affaire ci foofu noonu moo la tax a déplacé te du la neenal quoi waaw du la neenal quoi. waaw di la ñaanal rek carrière bi nga dugg nii yàlla nga bokk si ñuy xëccoo pay loolu lay ñaanal yàlla quoi te it fulaak fayda rek laay wax comme ni wax ñëpp mbër meek reporter ba ñëpp nit moom loo dugg def ci fulaak fayda moom wallaahi da nga ci am résultat loolu rek am solo waaw jaajëf. ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax Papa Sow euh, di ko jaajëfalaat encore une fois ci disponibilité am ndax ma yàlla xam na ni woowuma ko téléphone. damaa jékki-jékki rek ñëw këram ci at bu bees bi te doon na loo xamante ne dañ koy nettali 2021 Papa Sow laa ci njëkk a jël émission yàlla nañu yàlla defal ñu dund ay ati ati at ba di ko nettali eh, di jëfalaat bu baax a baax a baax encore une fois Papa Sow di jaajëfal mbokk internet Wassare Lamb bi ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf jaajëf papa.